Euh, bu ngeen gisee jataay bi ci sama euh, càmmoñ euh, gaa yi ñu tedd ñii di Cheikh Abdoul Ahad Bousso ak Cheikh Mouhamadul Bachir Faye nga xam ni daanaka dootuñ leen présenté fii ci atub kër sëriñ bi ndax miin nañ leen miin nañ leen bu baax ngir at mu nekk ñuy ñëw di ñu fàttali dara ci jukko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jukkoom yu rafet yooyu nga xam ne du jeex nga xam ni manees na ci waxtaan ren ba déwén te du jeex euh, at mu jot ñu ñëw bàyyi seen lépp ñëw ànd ak sëriñ Mouhamadul Mourtada guddi gi fàttali ñu dara ci jukke yonent bi sallallahu alayhi wasallam euh, te saa yu nekk ñu wax ñu ci loo xam ni benn rek suñ ko ci jëfandikoo ñu man ñoo euh, baaxal wala mu man ñoo jagal sunu dund gépp asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu yéen mbokki jullit ñi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara ci guddi gu tedd gi muy guddik gàmm di guddik gane àdduna sunu sang bi muhammadin sallallahu alayhi wa waaye balañoo tàmbali dañ koy def nañ ko daan defe rek beral sëriñ bi nuyoo cheikh Mouhamadul Mourtala moom sëriñ Saalihu Mbàkke beral ko nuyoo ak i cant ak di ko ndokkeel ci guddi gi ndaxte moom day yéeneem yéeneem réy na lool xemmemteefam ci liggéey bi ko maamam yi dénk ak sëriñ Saalihu Mbàkke moom ñim ko àndal ñépp ñi nekk ci keppaar googu de yëg nañ ne ku bëgg lu baax la yëg nañ ne ku leen bëgg dimbali la ba bàyyiwu leen dara mu neen yooyu nag moo daje ñu jukki ci tey gàmmo gi rek ah, euh, ginnaaw guddi na njàng mi dañ koy bàyyi xel jikkoy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom suñuy wax gàmmo mënees na koo jël mu doon bind ndax sallallahu alayhi wa moom ku ne xam na ko ci taarix ni mu tudd ak waajuram wu góor ak wu jigéen ah, ay maamam bañ mat ñaar fukk yu siiw la waaye nag sunu boroom bi mu koy tagg dafa jël yooyu yëpp daal di koy taggee jikko ju rafet wa innaka la ala xuluqin azim ne ko yow dey sa jikko yi kawe na te rafet na mu mel ni kon loolu mooy nattuwaayu jullit bi ci boppam ndax sallallahu alayhi wa sallam la jiite réew ma waaye daan jàngale yit jàngalekat la kon su ko sunu boroom tegee ci jikko day mel ni bind boobu yi jullit ñi ñoo ko tax a jóg kon jullit ñi ñoo war a xool lam jikkoo woon moom ñu dem ci seen kémt lay kàttan yooyu nag dañ ciy jukki as ci jikko yi wax ko bu ko defee doyloo loolu euh, jox sëriñ Abdul Ahad nga xam ne kuñ fi miin la ci jotaay bi ci yu am solo yim fi daan indi mu yeggale ko ñu ne yonente bi de sunu boroom daf ne moom uswa la uswatun xasana mooy royukaay la li ñu ko war a def mooy roy royukaay bu wu yiw la wu baax ngir jullit ñëpp moo tax sunu boroom tagge ko luñ ko mën a royee ndax bu ko bu waxoon leneen mën naa am loola doon ay dogal bu doon ku ku bu dee taar wala muy wërsëg walla muy bokk fa mu bokk loolu moom eh, yàlla sunu boroom moo ko yor te yemale ko waaye nag roy lu baax kenn ku ne mën na ko moo tax sunu boroom da koo taggee ci liñ ko mën a royee ñu ne moom sallallahu alayhi wa sallam jikkoom yi boo koy seet dafa mboole seen ci misaal xale bi lum tuuti tuuti mën cee gis boppam mag mi lu mag a mage mën cee gis boppam ci jikkoom ya góor noonu jigéen noonu kiy dund noonu ki faatu noonu nga xam ne ñépp la daan jëflanteel kenn ku ci nekk dana ci doxe ak nite ba nga xam ne day defe ne xanaa wet gi mu féete rekk la sallallahu alayhi wa daan jëf wala wet gi mu féete rekk la wax wala wet gi mu féete rekk la soññee ba ci ñi nga xam ne jullit lañ waaye ñu dul jullit sax joxoon na leen cëru doomu aadama ak worma ju tol ni mbindeefu sunu borom lañ mu daan jëflanteek ñoom ci noonu ba kenn ku ko ci mas a def loo xam ne sax jaaduwul su toogee diir gisu ko dana ko nemmeeku seet ko wala mu laajte na ka daan def nangam anamu xam nga loolu jikko ju rafet la loolu la jikko ju rafet di wane jullit bi yooyu la war a xool ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu gàmmoo jotee yu mel nii mu jël ko roy ko mu doon ay bind yu muy jële ci moom yonente bi ku yërëmoon jur gi la sax jur gi mooy ñi nga xam ne ay xayawaanaat ñi nga xam ne loolu la ñuy tuddee les animaux da leen a yërëmoon lool daan jëflante ak ñoom jëflantewu wu mbindeefu suñu borom yàlla bind noonu yi nga xam ne duñ noyyi sax da daan jëfandikoo ñoom jëfandikoo goo xam ne day wane na sunu borooma leen sàkk nga xam ne li ñuy tudde ay jamaadaat lenn lum mu ciy jëfandikoo du xotti warmaam du ci jëfandikoo lu soxlawul waaye da koy da koy jëfandikoo kemtalaay lam ci soxla daal di koy bàyyi daawut lor dara fa salawaatu rabbi wa salaamuhu yàlla na ko yàlla dolli ay yërmande ki xéewal sallallahu alayhi wa sallam ku bëri woon ak jaamu la ci wàllu jikko ku bëri woon lu muy jaamu yàlla la te moom te e, e, sunu boroom da koo teggi lépp waaye nag wane gi muy wane yoon ak jàngale gi muy jàngale jikko da daan jaamu yàlla bu baax a baax daan bari lu muy taxaw bëri lu muy woor bari lu muy def ay azkar di tudd yàlla sunu boroom dañoo jëlee ci ku ñuy wax euh, ibnu omar radiallahu anhu mu ne ñun de ñi nga xam ne dañ daan bokk ak yonent bi jotaay am na lu ñu seetlu woon ci moom daan nañ seetlu ne jotaay bu ñu toog lu mu gàtt-gàtt ci benn jotaay danañ ko dégg mu wax li mu téeméer wala lu ko ëpp ci baati rabbi xfir lii wa tuba alayya innaka anta tawaabu rahim yàlla nag ma baal yàlla nag ma jéggal yow de ku mën a baale nga ku te ku bari yërmaane nga ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, ibnu omar nee na jotaay yi lu mu gàtt-gàtt dañ koy dégg muy baamtu baat yooyu rek di ko wax xam nga ne loolu ci yar la ak ci rafetu toogaay ak jikko ju baax yenent bi rauf ku bari woon yërmane la ak ñeewent sunu boroom bi mu indee ay jikkoom am na ci tur yoo xam ne turi yàlla la waaye da koo jël jagleel ko yonente bi boole ko ci laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun aley tur sunu boroom la waaye foofu yonente bee ko moom maa anittum xarisun aleykum bil muminina rauf rahim rauf tamit gis nga ko noonu rahim gis nga ko nga xam ne yàlla dog dog na ci ci mbiram jagleel ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam ndax nurulu nuru gi mu koy nurulu ci baax ak ak yërëm nit ñi ak ñeewante leen ah bi nga xamee ne ci jikko yu rafet nee nañ am na arab yi mooy ab sàmm koo xam ne yeewuteem dafa des bi mu ñëwee ci jàkka yonente bi sallallahu alayhi wasallam nga xool dimension bi yonente bi tolloon aajo dab ko mu tuur ndox ci fi ñuy jullee bi mu tuuree ndox fi muy jullee saxaabatul kiram ña fa ne woon jóg dal ci kaw kookee bëgg koo néewal doole ndax lim def ni mu rëyee sallallahu alayhi wa sallam ne leen bàyyi leen ko ba mu yeggalee aajoom bi mu yeggalee aajoom mu woo ko ba mu ñëw ci wetam wax ak moom wax ju dal ne ko ñun sunu barab yii nii méngoowul ak jëf ji nga doon jëf daal ne dem leen wut siwo walla fu ñu mën a def ndox bu ngeen ñëwee ngeen sotti ko ci kooku boo ko defalee nit ci xeetu jëflante bu mën a doon dana la bàyyi xel lum la noonoo noonoo dana la bàyyi xel lu mu féete feneen féete feneen dana xam ne lii nga nekk dëgg la ndax ak nite la yooyu itam ay jikko la yoo xam ne mënees na koo jël ci sallallahu alayhi wa sallam lam daan def nee nañ yonente bi kaana bas la ku mënoon a joxe la daan joxe bu baax a baax ku mënoon a dimbulee la doonoon na koo xam ne daawul gànt ab laajkat walla ko soxla lu mu yor rek da koy jox da koy joxe xakim xakim ibn xisaam dafa nettali ne man dey laaj naa laaj naa ko moom sang bi sallallahu alayhi wa sallam mu jox ma ma laajaat ko mu jox ma ma laajaat ko mu jox ma mu mel ni yonente bi barkeb mbirum sunu boroom loo ko laaj rek mu jox la loo ko laaj rek mu jox la Hakim daal di koy natt ne laaj naa ko mu jox ma ma laajaat ko mu jox ma ma laajaat ko mu jox ma ngay xool ñu bari loolu boo leen ko defee dégg nga daanaka dana am nuñ jëflanteeg yow waaye moom ab jàngalekat la woon boo xam ne fa mu nekk jafe na waaye lam daan def loo ci roy rek mu am solo lool te baax nee nañ sallallahu alayhi wa sallam loxoom bii loxo bu tab la woon ku yaatu woon ab joxe la ku yaatu woon ab joxe la nee nañ mës naa sol burda burda mooy xeetu mbubb la boo xam ne ci arab yi xam nañ ko man bu la neexee tudde ko jàllaa bi wala manto am ku ne ko manto bi day rafet na manto bi rafet na bëgg naa ko yonente bi dindi ko jox ko ko sallallahu alayhi wa loolu lépp ci ay misaal la nee nañ tam kaana tayiban wa kaana laa yakulu illa tayiba ku daan wormaal aka xool li muy jëfandikoo ci biiram la kaana yakulul xalaal lu dagan rekk la daan jëfandikoo da daan sàmmanteeg aq yàlla ci lu mën a doon waaye di sàmmanteeg aqi doomu aadama ci lu mën a doon te xam ne ku ne xam na ne li ñuy tudde alxuquuq maanaam àq yi ay àq yu bari la am na ci loo xam ne xuququllaahi ay àq yàlla la sa digganteeg sa boroom moom nga ko séqal man ngaa am sax boo ko defewut ni nga ko war a defee boo ko tooñee boo ko jéggaloo mu jéggal la waaye am na ci loo xam ne sa digganteeg sa moroom la ñu koy tuddee xuququl ibaad mooy àq yi nga xam ne moom nga séq ak sa moroom yooyu yëpp yu jara sàmm la man ngaa gis nit koo xam ne dana séq dana toppatoo àq yàlla yi lim ci man yi ko yi ko ci tële mu jéggalu ko sunu boroom wala yàlla xam ne fii la dooleem yam mu jëflanteek moom ci noonu waaye nag sàmmanteeg àq sa mbokk mbokkum doomu aadama wala nga sàmmanteeg sa àqu mbokkum mbindeef koo xam ne du doomu aadama waaye mbindeef la wala nga sàkkonteeg eh, eh, nga nga sàmmanteeg koo xam ne sax mbindeef la waaye gisoo ko sax muy noyyi mën naa am xeer la aw xeer la wala aw doj masalan walla am ndox la walla lu yàlla bind rek la mu ne ci suuf nga koy gis am na àq ju ci nekk joo xam ne joo war a warmaal la ñu ne sallallahu alayhi wasalam yooyu yëpp da ci daan joxe bind da daan sàmm àq yàlla yi waaye ku daan sàmm àqi doomu aadama yi la ku daan sa sàmm àq mbindeef yi loolu mooy hadiyu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bind yu bari la waaye jotaay bi nii la bindoo dañ ci doon barkeelu rek ah, ndax moo ni toll ëpp na ko sax dañuy jéem waaye mënuñu koo wax dal di jox sunu mbokk jëwrin Cheikh Abdoul Ahad Bousso mu ñëw ci yeggale waxtaan yooyu ci jikkoy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jërë ngeen jëf ñi ngi sant bu baax di gërëm di ñaan sunu boroom mu nangul ñu jaamu yéeg njàng meeg askaar yeeg jéego yeeg lépp ci keppaaru sunu sëriñ bu tedd bu baax bi Cheikh Mouhamadul Mourtada Saleh sayyidina wa mawlana Mouhamadul Amin wa ala wa sahbihi man tabiahum bi ihsaanin ila yawmi ddin asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu eh, jërëjëf sëriñ Basiru ci kàddu yi am solo yi ak ci waxtaan wi nga xam ne tàmbali na ko te daanaka tënk liñ bëggoon wax lépp rek te mu aju ci jikkoy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw bu ñu nuyoo mbooloo mépp nag siyaar leen ci guddi gu tedd gi nuyu Seex Muhammadul Murtada ñu sëriñ Saalix di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi te mottali ay yéeneem di ñaanal itam ñi ànd ak moom ñëpp yàlla may leen liñ sàkku ci ngërëmul sëriñ bi te li ñu tax li tax ñu daje ci guddik tey gii yàlla nangul ñu ko lépp luñ fi def rek ci ay jaamu yàlla ndax guddik barke la guddik jaamu yàlla la waaye guddi sàkku tuyaaba la ndax ki nga xam ne moom mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñëw gi ñëw jamono feeñ ci guddi gu tedd gi sëñ bu mag bi waxoon nañu loolu li muy màndargaal ak ni mu nekkee guddi goo xam ne guddik far jiixi jaax la sikki sàkkaak jaaxle ci la dañe guddi goo xam ne coono ci la dañe guddi goo xam ne guddik euh, mucc la guddik texe la guddik yewenuk mbir guddik mbégte ak yam ci tudd yépp loolu nag ñi nga xam ne ñoo nangu ab wooteem ak ñi yàlla euh, nar ci ñoom ñu nar a ko loolu lay wane ci ñoom waaye bu dee ñi ci safaan bu moom guddi gi du baax ci ñoom waaye nag kon ni ko sëñ Basiru laytaay rek moom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf koo tànn jox ko jikko yi nga xam ne mooy jikko yi gën a baax ci jikko bu man di doon waaye xam nañ ne du koo tànnal aw askan laataa loolu askan wu baax waxoon na ne ana xiyaarun min xiyaar du koo tànn jële ko ci ñu tànn ngir waajal ko waaye moom yàlla suñu borom moo ko yar ndax nit ku ne rek ka ko yar la ñuy xool waaye moom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla moo ko jaarale fa mu ko bëgg a jaarale def lam bëgg a def ci moom ba mel na mel moo tax waxoon na ne addabani rabbi fa ahsana ta'dibi yàlla suñu borom daf maa yar ba noppi rafetal yar gi ma yar kon kooku yàlla moo ko yar moo tax bi mu ko yaree ba noppi mboolem luy jikko yu rafet ak makaarimul axlaaq daje ci moom ba mu koy tagg mu tagg ko ci wàll googu wa innaka la ala xuluqin kon yàlla si borom moom moo ko waajal moo tax biñ delloo ci siiraam ak ay jaar-jaaram dañuy gis ne moom mooy ki jëmmal alquranul karim moom mooy ki dund alquranul karim mooy ki nga xam daal bu ñu ko gisee ngi dox mën nañu wax ne alquran ji dox mi ngi nii ci jikko yi ci jëflante ba ci melokaan ya ci wax ja ak lépp loo gis ci moom rek lépp alxuraan lay tekki moo tax naa ay Aysa daal wax ne kaana xuluquhul quraan jikkoom daal mooy alxuraanul karim moo tax boo delloo ci siiraam maanaam misaal moo bëgg rek ci doomu aadama boo jël ak position bu mu mën a taxawee moo xam boroom kër bi la moo xam njiit li la moo xam ku man di doon liggéeykat bi ku nekk ca tool ba di xare koo jël rek boo ñëwee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mën na nekk royuwaayam nekk misaalam yonent bi sallallahu alayhi wasallam daanaka jikko boo jël rek mën nga cee wax lu baree bari boo ko fekkee biir këram mën ngaa wax ci moom lu bari na muy jëflanteeg waa këram nekk koo xam ne moom waxoon na ne ki gën ci yéen mooy ki gën ci waa këram man maa gën ci sama waa kër nga fekk ko foofu mu nekk ku am yërmaane ci waa këram kuy jëflante ak ñoom jëfalante bu rafet rafet mu ay soxnaam ak ay njabootam ak ñi nga xam ñooy surga ya ak mboolem ñu nekk ci biir kër ga ñëpp euh, Seydina Anas ibnu Malik bokkoon ci saxaaba yi daan liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak moom lu yàgg bu ko daan tuddee xaadimul rasul mooy saxaaba yi bi ñu daan tuddee xaadimul ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax da ko daan liggéeyal nekk ab surgoom ci biir kër gi waaye anas seere woon na wax ne moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam de liggéeyal naa ko fukki at waaye musma wax lu tax nga def lii musma wax lu tax defoo lii nga xam ne kon moom ku neexa nekkal la koo xam ne nit ku mën doon boo jaxasoo ak moom rek du la masa lor ci wax walla jëf moo tax ñu wax ne mësta door mukk ab sërga ci loxoom mësta door kenn kenn ndax yërmandeem ju bari ak jikkoom ju rafet biir këram sax danga koy fekk muy moom moom lu ne moo koy defal boppam muy kër kër di liggéeyal boppam yi nga xam ne surga yi ñoo koy def moom itam loo yooyu yooyu yëpp da koy def lu mu ci mën di doon rek ngir toroxlu ak ngir jàpp ne boppam rek ne kenn la ci mbooloo mi lépp lu nit ñi def da ko war def nga xam ne kon da daan liggéeyal boppam lenn lu ne mu di ko defal boppam du xaar leen luñ koy defal yi nga xam ne ñeneen a ko war a def mu leen tey jàppale da leen tey jàppale di ngir liggéey woyof loolu am am solo la kon royuwaay la ci wàllu googu ci képp koo xam ne yaa ngi sa biir kër nga jël yonente bi sallallahu alayhi wa sallam def ko muy say royuwaay ndax sa kër nekk ni nga war a nekk ñoom ñu mën a jël ci yow royuwaay mën a tegu ci yoon waaye boo génnee kër gi tam noonu ngay ànd ak moom ci jikko yi dañuy gis lu baree bari alxuraan di ko di ko wax ay wax yu baree bari ànd ak moom di ko wax naan ko muñal léeg-léeg léeg-léeg maan ko nanga wàcce sa bopp na nga toroxlu wax fa janaaxaka liman ittabaaka minal mu'minin nga xam ne yu mel noonu yu mu koy wax yu baree bari nga xam ne euh, moom kon alxuraan moo koy moo koy jubbanti moo koy teg ci yoon an ko defal lii defal lii di ko wax léeg naa ne ko bul naqari deret ndax boo naqaree deret wala nga xaw a tar wala nga xaw a tàng ñu nga xam ne ñooy ànd ak yow da ngay jekki jékki dootoo ci gis kenn day bàyyi dem moo tax moom loolu ko Alxuraan doon wax di ko digal moom moo koy njëkk a jëfe ba jëfe ko nag ca anam nga gën a kawe moo tax mu nekkoon nit ku nit ku nit ku toroxlu waaye nit ku lewet nit ku woyof nit koo xam ne itam ku wàcce boppam la nooy ner mooy koo xam ne boom dox ci mbedd mi képp ku ko bëgg a taxaw loo rek ngir sa soxla wala loo soxla moom moom dana taxaw wax ak yow bu dee loo aajowoo mu ànd ak yow dox ca aajo ba aajo ji sotti mu door eh, ci leen ci ci ci ci aajo yu bopp ba ci sax gone gu ndaw wala ku mën doon rek nit koo xam ne nit ñi dañoo yàpp ne xeebu wala ku mën doon mën naa ñëw jàpp ci loxoom yóbbu ko fu ko neex mu dox ci ay aajoom ba ay aajoom sotti mu door a dem ngir woyof gu mu woyof ak nooy goo xam ne nooyoon na ko yaakaar si suñ béseer tudd na léegi ki nga xam ne ñëwoon na ci jàkk ji doon fa gaanuwaay ak taxawaay ba mu ci am nañu waroon a jëfalante ak moom mu dalal leen wan leen ne noon du noonu fexe leen ba li mu fi def ñu fexe ne mu dañee waaye moom bu ko kenn laal ba mu noppee nag mu wax ak moom boo ko ba mu ñëw wax ko ne fii loolu taxu koo jóg barabu jaamu yàlla la te xam sax kooka moom yëf yi rëy ci moom lool bu jàpp ne moom daal yonent bi sallallahu alayhi rek la mujj sepp ci yëf yi damuy ñaanal boppam daa ñaanal boppam rek ñaanal yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu jeex kon moom noonu la amee woon yërmande noonu la amee woon ak lewet ak toroxlu ak wàcce boppam waaye mën a mën a muñ lool itam nag te dëddu àdduna itam nag ndax li ko yàlla jox ci wàccuwaay lépp ak lim amoon lépp ci daraja wàccuwaay ak ak fi ko saxaaba yi teg ak bu ko neexoon nga xam ne du jeexal dara waaye këram daana toog ay fan léeg-léeg cin du fa tàkk cin du fa tàkk nga xam ne ab xiif ci daan wéy ak euh, coono ak jafe-jafe te lépp mu ko daan muñ ngir yàlla lim daj ci wootab lislaam bi ci njëlbeen ko xam ngeen de waa Màkka ak waa Quraysh rawatina liñ ko teg ci ay coono mook ñi nga xam ne ñoo njëkk a gëm te njëkk koo topp ci saxaaba yi euh, ay coono yu méttee métte la ak ay jafe-jafe ay bundu ak ay lor yu ñu leen daan lor waaye moom moom muñ ga ak mën a dékku ga jéggi na dayoo ba gis ngeen nan gàddaayo woon dem Taif ak lam fa daj ca Taif foofu neexut mu war dellu si waat ba ni mu waat waaye muñ googu moom naka jekk moom lañu xam ci moom mën a jaamu yàlla lool nag jaamu yàlla moom kenn ku ci dab taxaw guddi rek naafi naafila naafila naafila di julli ba ay tànkam sax daan am jafe-jafe te moom moo ne yàlla sax jéggal na ko ay bàkkaar wax na ko buñ ko waxee laaj ko ne ko yow sa jaamu yàlla gi te yàlla jéggal na say bàkkaar moo leen ndax duma nekk euh, jaam boo xam ne day sant yàlla suñu borom kon moom dafa jàpp ne day delloo njukkal yàlla si borom ci jaamu yàlla gi kon lum metti metti ak mu tar-tar dana ko jéem a dékku dana ko jéem a muñ ba def li ko yàlla sant ba def si sax lum man ak lum mënut euh, moom mooy ki yàlla tànn yónni ko ci ñun te ganeek àddunaam niñ ko waxee sànq rek di màndargaal lu baree bari ci suñu texe texe ak àdduna ak àllaaxira ñu war a bàyyi xel àq yooyu nga xam ne am na ko te di ko ko jox suñu kemtulaay kàttam jaar ci aw yoonam di ko xeñtu di ko roy buñ ñëwee ci suñu sëriñ Seexuna Seex Ahmadul Xadim dañuy gis ne moom jox nañu misaal misaal mu leer a leer wan nañu itam aw yoon moom mooy ki nga xam ne fa mu teg yonente bi sallallahu alayhi wa gisuñu kenn kenn ku ko fa masa a teg bëgg gi mu bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa gisuñu bëgg gu mel noonu moom kenn mës koo gis bu ñu delloo ci ay mbindam dellu ci ay taxawaayam ak ay jëfam lépp dañ ci gis bëgg gu yéeme yéeme bëgg gu tara tara tar ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu koy dundalee itam melokaan bi ñu bàyyi ci xel bu baax a baax ba mu gën a dëppoog ndigalu sëñ bi ngir ñu mën cee nga ngërëmam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi waxtaan wi niñ ko doon séntoo kawe na sunu njort te mooy niñ ko junjee woon rek ci njëlbeen gi mooy fàttali ñu dara ci jikko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te defe naa ne lii ñu fi indil ci ay melokaan ci ay jikko yu rafet te nga xam ne lépp ci dundug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la defe naa ne bu ñu ko jëfandikoo mën nañ cee jariñu sunu giirug dund waxuma laa ren nga déwén sax waaye mën nañu cee jariñu sunu giirug dund kon nag jikko yooyu lu mat a dégg la waaye lu mat roy la lu mat a dégg la lu mat roy la ndax ci jukkoom yu rafet yooyu bëri na ci ci yéefar yi yoo xam ne ci ci ci ci ci ci jikko yooyu ci lañu ñu euh, tuubee dugg ci lislaam euh, jikko yooyu ñun war nañ cee roy bu baax a baax a baax ngir mën a euh, jagal sunu àddina ak jagal jagal sunu alaaxira kon ñi ngi leen di santaat bu baax saa su nekk yéen a ngi ñuy dimbali di ñu di ñu di ñu di ñu di ñu wan yoon wi nga xam ni foofu la ñu war a jaar tey mu yoon wi nga xam ni moom la Euh, suñ borom bëgg yonent bi bëgg ko Serigne Touba bëgg ko te Cheikh Mouhamadul Mourtada mii nga xam ni moom la ñu àndal yoon wi nga xam ne moom lañ bëgguñu ñu tege ci ci yoon woowu rek ngeen ñu ngeen ñuy teg euh, bi ci mujj rek mooy euh, conférence bi nga xam ne def nañ ko ci màggalu Touba gi nga xam ni nga may sàkkuwaat sax ñëpp suivre ko ndax day lu am solo thème bu am solo boo xam ne ndaw ñëpp ko war a suivre te loolu li tax sëriñ bi tànnoon ko itam